سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو تايتي بندب به تي تيسير العسير فسلم بوحني وصل يا ملك ولتسلم على الذي بشرته بقلمي مجلسي ينتبه دفت وصل تتر ملك الملك نك تر لو خمني واتنتي ديكنتي القران تي نينت بير بو فكي دفا اندك معرفه لي موي الملك ديك نتي القران لو مات نينت يوم ديك نتي سوره فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما نان لا ديكي سوره المؤمنون صبرا وحدي فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ونيوتا سورة الحشر صبرا وحدي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ñeenteel bi ñëw na ci suratul jumua su boroom wax ne lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard al malik al quddus al aziz al malik bu àndee ak lif ak laam ñeenti yoon yooyu la ñëw ci alquran ci suratul fatiha sun borom wax ca ni alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin danañ jàng it maliki yawmi ddin ñaari njàngeen yépp wéral na ci juróom-ñaari njàngeen yi gën a siiw ci njàngeen yi muy qiraatu naafi te ku ñuy wax wars ak qaaluun nettali ko qiraatu abi abi ibni kasir تكون وخ البزي وقلب النتلك قراءة أبو عمرو نيكو رواية نيكو نتلم الدوري والسوسي قراءة ابن عامر كفو نيكو نتلم هشام ابن ذكوان قراءة عاصم نيار نعم، نيكو نتلل أبو بكر شعبة ابن عياش أك حفص ابن سليمان ak qiraatu Hamza te ñaar ñi ko nettalil di xalaf ak xallaad ak qiraatu Ali ibnu Hamza ñu di ko wax alkasaa'i ñaar ñi ko nettalil muy abul haris ak adduuri kon juróom-ñaari njàngin yépp ñaari riwaayaat yooyu ñaari riwaay yooyu wér na ci muy maliki yawmiddiini ak maliki yawmiddiin as-Saadiyu ci ab tafsiram mu wax ni sun boroom wéer gi ñu wéer bés bi ci bisub diin ni malik yowmi diin te mooy bisub muy yowmal qiyam muy bis bi nga xam ni ci la suñu borom di fay nit ñi seeni jëf la ca baax ak la ca ab safaan mu ni li ko waral mooy bis boobu yi ci lay feeñe ci la matuk matuk nguurug suñu borom di feeñe ak akub xikmaam akub bés boobu moomeeli mbindeef yépp dañuy dog ba buur ak i dag yam ca jaam ak gor yam fa ñoom ñépp ñu mokk ñeel màggug yàlla toroxlul tedd nga yàlla di négit fayuk suñ boroom di yaakaar yoolub yàlla di ragal yépp mbugalum sunu boroom loolu yi moo waral mu jagleel ko ak tudd ni maliki yawmid diin waaye suñ boroom mooy boroom yawmid diin mooy boroom bi si ci yépp dëgg-dëgg nguur buñ ko waxee ci làkku arab malik li muy tekki mooy koo xam ni mën naa def mën a dindi am kàttan di mën a joxe di xañe di fal di folli di terle di toroxal ku yaayoo toroxal kooku lañ daan tuddee malik muy daal na mën a def dindi ci jëmmi boppam man ko ci ñeneen ci ak njabootam man ko ci biirub moomeelam lan moo xàjjale diggante malik ak malik al malik mooy boroom nguur goo xam ne nguuram dafa mat dafa généralisé jamono bi ñu toll bu ñu ko doon misaal dañuy wax ne mooy président de la république bu dee umara yi ci des mooy ku yilif ab région baa nga yilif ab département baa nga yilif ab arrondissement ba ci sax euh, président communauté rurale ba ci sax ab chef de quartier yëpp ay umara lañ waaye malik degré bu ko waxee mooy ki nga xam ni moom la ak nguuram daj fépp mat sëkk waaye nag nit ki mën naa nekk malik mooy buur ci lu dul ak nguur loolu nu mën nekke nit mën naa nekk malik bilaa mulk mooy buur ci lu dul nguur te mooy buur boo xam ni amul kàttanu def amul kàttanu dindi nga xam ni mbir yi ci loxo yeneen lay nekk fi ñu toll jamono bi ñu rek euh, boo demee Angleterre buur bu jigéen lañ muy reen waaye nag defut dindiwut nguur gi mooy buur bi waaye yorul nguur gi ndax nguur ga ci la yeneen loxo la nekk dañuy am raisul wuzara dañuy am ay premier ministre boo xam ni ñu moo ki état moo gouvernement am ñooy lijjanti lépp kon ngu buur mën naa nekk ci lu dul muy doon muy amul nguur bu ñu nee Malik nag Malik moom ak moomeelam dañ ko limité ndax nit ku ne rek nit ku ne rek ma mën nga mën nga ne kii ku ne rek malik la ndax ñàkkuloo moom ba ci nit ki bu amul lu dul tubayam sax malik la mën nañu kooku malik la waaye nag du malik ndax malik buur lay tekki mooy yilif kilifte bu yaatu malik nag mooy ku moom dara ku moom dara ku maandoon rek malik la kon nit ki mën naa nekk malik te lu nekk maalik te mooy mu doon buur te yilifut ngir am na ñeneen ñuy dox diggante ko kilifteen waaye naka noonu it ne mën naa nekk maalik te du doon malik te nga am loo moom rek yaa moom sa kër yaa moom say dàll yaa moom say say tool waaye nag doo buur nag doo malik